sànq da nga da nga da nga effleurer justice. waaw euh, lan ngay euh, ŋàññi ci ci ci justice bi d'accord ni mbir yi demee. alors écoute justice bi euh, xam nga ce que peut-être li li nga xam ne moom mooy le problème de la de la justice mooy peut-être que dafa laaj ay états généraux dafa laaj ñu seet est-ce que le le Sénégalais se retrouve ci justice bi. est-ce que justice c'est la même pour ñëpp amul loolu mooy problème bi à partir du moment où léeg-léeg il mu am des problèmes au niveau de du gouvernement on ne réagit pas mu am d'autres problèmes au niveau de l'opposition on réagit loolu li muy def ci kii ci citoyen bi day tax on se dit est-ce que c'est la même pour tous. ah bon le le d'après yow il y a un sentiment d'iniquité euh, les membres du gouvernement sont intouchables et les membres de l'opposition sont sont comme ça je je prends hmm. juste l'exemple des fonds Covid par exemple. fonds Covid yi xam nga y' a des enquêtes qui ont été faites et euh, c'est c'est c'est c'est justement des des collègues du de de l'État du gouvernement qui ont été quand même épinglés yu mel noonu soo ko réglé wul rapidement en même temps nga régler des problèmes euh, relatifs à en fait loolu interprétation. des problèmes euh, à l'opposition c'est-à-dire par exemple s'il y a des gens comme euh, Ousmane Sonko ou d'autres personnes soo ko soo defee euh, jugement yi nga xam ne ñii nga tu le ralentis ñële tu le fais tout suite loolu mooy am ce sentiment en réalité de de de non de non d'application de la justice. et ñoom ils ont ils sont coupables de ce genre d'acte. non c'est une c'est la responsabilité de l'État. de faire en sorte Et que... Et du chef de l'État Non, je ne parle même pas du chef de l'État, mais s'agissant de, de l'État, de faire en sorte que, euh, qui citoyen, que, quel qu'il soit, muy ministre muy député muy euh, euh, en tout cas moi le, le gouvernement que je compte diriger si j'étais élu président de la République loolu laay jëkk a rectifier pour que quelle que soit la personne qui est responsable muy député muy ministre muy voilà parce que loolu li muy indi mooy day tax euh, day indi un sentiment de frustration qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas day indi un sentiment de justice à deux vitesses or dans une démocratie ça repose essentiellement sur la justice la transparence sur le sentiment nga nekk vraiment dans un pays boo xam ne soo tooñee nit en fait yow ñu ñu won la yow. xanaa yow euh, mhm. temps d' avec le sort réservé à Ousmane Sonko jàpp nga ne on a une justice à deux vitesses. non non kii xam nga le cas je ne veux pas tellement prononcer sur ce dossier là parce que je connais pas vraiment tout le dossier. Mhm. xawma les tenants et les aboutissants ce que je veux dire tout simplement ce que j'observe tout simplement mooy euh, tu as on a affaire à. Euh, euh, à des cas yoo xam ne de part et d'autre da ngay gis peut-être le niveau de de de de de, de délinquance ou le niveau en tout cas euh, d'acte répréhensible euh, c'est le juge qui apprécie ça mais ce qu'on observe rek mooy il faut que justice bi que ñëpp que tout le monde soit soit égal euh, devant la justice loolu c'est important pour un pays. mais pourquoi bëggoo wax ci loolu c'est un c'est un cas d'école euh, c'est une actualité brûlante aujourd'hui on ne peut pas parler du de l'actualité politique au Sénégal amul un homme politique bu amul un avis sur ça est-ce que vous êtes d'accord avec son incarcération est-ce que vous êtes d'accord avec euh, la dissolution de de de Pastef ou pas. Euh, xam nga su euh, fekkee ne c'est des jugements qui ont par. nos tribunaux. Il n'y a pas de jugement encore. Voilà, je veux dire, c'est une condamnation, mais quand même, c'est fait par euh, un juge, par euh, le. Voilà, Lolo. Moi, je, je, ne parle jamais de la chose jugée. Non, le dans corps. le cas d'espèce, ouais, ouais, euh, Ousmane Sonko n'est pas en prison euh, y a pas, euh, pour, pour, pour, pour une affaire déjà jugée. Il n'y a pas un jugement.

di nga di nga war nga wax ci yooyu. non juge le juge n'est pas Dieu hein. mais Maïmouna je respecte beaucoup la justice sénégalaise. mais le juge n'est pas Dieu. je sais que qu'il n'est pas Dieu mais mais ñun la loi la constitution moo ko may yu mu am. déedéet cette cette. Euh, juge bi lu ko constitution may li constitution may may. dafa am ay ak ak ay yelef ak ay limites yu mu war a respecter mais loolu yow sa mooy nga est ce que ça a été man euh, tey ce que mooy amuma tous les éléments pour xam ndax lii nii la ko juge war def ce que je mooy benn juge moo ko donc inculpé nañ xaar maintenant le jugement à part moment suñ ko jugé ci ngay mën a xam effectivement ndax acte yi ñu doon wax c'est vrai ou c'est pas vrai. mais sur la dissolution de de PASTEF en au Sénégal d'accord nga ñu statut d'un parti politique alors su fekkee ne un parti encore une fois c'est le c'est une décision je pense c'est pas une décision de justice c'est une décision c'est le ministère de mais ça émane certainement peut-être de cette notion euh, de de de actes yi xëy na yi nga xam ne moom moo accompagné woon yi tax ñu inculpé xëy na c'est lié à ces actes là mais là comme je dis je ne peux pas me prononcer d'une manière générale man je suis un démocrate d'une manière générale je pense que le le la force de la démocratie mooy ñu bàyyi les acteurs ñu compétir maintenant il y a des limites su fekkee ne un parti politique dafa am ay limites euh, en terme de de violence en termes d'organisation en termes li nga def ak li mu mënta def loolu effectivement il peut arriver que soo dépasser loolu qu'on puisse ñu appliquer la loi mais il faut l'appliquer pour tout le monde c'est ça qui qui qui m'importe man alors xaw ma dans quelles conditions on est amené à mais ce que je sais mooy en tant que parti dafa am fi nga war a li nga war a def ak li nga warul def